Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce samedi 3 février à 14h, 4 heures après avoir enregistré à la RTS pour notre premier passage, j'ai écouté l'adresse à la nation du président Macky Sall. Après l'avoir bien entendu, J'en conclus que le président Macky Sall a décidé purement et simplement d'annuler l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je rappelle, le 8 janvier passé, lorsque nous étions, lorsque nous avions déposé notre recours au Conseil constitutionnel avec le groupe des spoliés du parrainage, nous avions clairement exprimé notre opposition à tout report de cette élection. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes opposés à l'annulation de l'élection présidentielle décidée par le président Macky Sall, alors qu'aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire ne lui confère pareil pouvoir. euh, c'était un point de presse, un communiqué de la coalition Alingui 2024. Et nous avons décidé, pour faire plus de génère, preuve de générosité, de vous accorder quatre questions. Et on va passer en Wolof. ñi ngi leen di nuyu di len ziar yéen ñëpp ku nekk ci si tur ak sa sant di leen gërëm ci seen teewaay ak seen taxawaay ak liggéey bu rafet bi ngeen di def pour démocratie sénégalaise ni mbir mi demee tey tax na bi ñu toogee saytu ko càmbar ko ñu jàppoon ni organiser point de presse pour waxat askanu Sénégal dafa doon nekk lu jaadu ci noonu dañ leen convoqué ba ngeen ñëw fii léegi damay delloo kàddu bi président Aly Ngouille Ndiaye li mu wax ci nasaraan mu waxaat ko ci wolof. mbokk yi maa ngi leen di nuyu. kenn ku nekk ci ak santam li leen jaajëfal ci wuyu bi ngeen ni wuyu si tey tey di samedi ñetti fan ci weeru février daanaka ñaari waxtu ci weeru février daanaka euh, ci 4 heures après bi ñu enregistré RTS pour tàmbali suñu campagne déglu nañ président Macky Sall bi muy wax ak réew mi déglu nañ ko dégg nañ ko waaye liñ jàpp ci li mu wax moom dafa décider ne annulé na élection wu 25 février 2024 waxul na randal na ko ndax daf ñoo woo pour ñu ñëw élection nee na lam ñu woowee woon teggi na ko may fàttali ne le 8 janvier 2024 ànd naa ak ñi ñuy wax spolier maanaam ñi ñu salfaañee woon seeni parenage dem def benn recours conseil constitutionnel ba ñu ca génnee ba ñu jàkkaarloog journaliste yi wax nañ leen lu leer ñëw nañ fi pour bañ lii waaye d'accorduñ benn yoon ñu toxal élection yi tey nag li président Macky Sall def dafa weesu toxal élection ndax dafa dàq élection te xamuñ kan la ko bëgg a def ñuy fàttali moom di ko fàttali di fàttali réew mi ne président Macky amul benn yoon du constitution du loi bu ko mën a permettre mu annuler ay élections ci Sénégal jërë ngeen jëf. léegi yéen vous de la presse euh, organisez ngeen seet quatre questions yi naka lañ koy boole. Comment vous Ce n'est pas à moi d'expliquer la décision du président Macky Sall parce que je n'ai pas été associé à sa décision. J'ai dit tout simplement qu'il n'a pas le droit de prendre cette décision en tant que gardien de la Constitution. Vous la qualifiez Illégale. Et nous prendrons les dispositions par rapport à toute décision illégale. Qu'est-ce que cela veut je me, lui, au report de l'élection, pas à l'élection. Je m'oppose à l'annulation de l'élection, parce que pas légal. Est-ce Non, je ne vais pas battre campagne, pas d'élection.

à y participer. Je ne vois pas pourquoi je ne participerai pas à un dialogue national. Mais ça ne veut pas dire que je suis pas. Aujourd'hui, on est un niveau où j'ai dit je suis contre l'annulation de l'élection présidentielle. Maintenant qu'elle a été décidée, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous On verra toutes les voies de droit. Est-ce que vous allez rejoindre le